xamante ne mooy arène nationale Jamaïcain Jam production moo ñu fi woo tey grand combat bi dox ci diggante rëg bu caaro yi ak ki nga xamante ni mooy bombardier ñoom ñooy bëre grand combat bi mais spécial baa ngi ci digg géew bi diggante bébé Diène ak amaneex ñaari xale yaa ngi ci digg géew bi mbokk yi bébé Diène amaneex ñooy bëre li nga xamante ni mooy spécial bi saa su nekk di leen bàyyiloo xel ci chaîne bu mag bi nga xam mooy Dakar People comme niñ koy defee spécial lamb mandat avant après ci lañuy ñuy dox bébé Diène ci digg géew bi am na benn biteel bu muy xëppoo moom bébé Diène mooy ku xees gi tey <laughs> bébé Diène ak a mën a ruube ci digg géew bi bébé Diène mi ci digg géew bi xëppoo na benn biteel ama neex nag duggagul duggoon na sànq génn daal mais ama neex gis nañ ko ci ginnaaw bébé Diène am na lu koy joxoñ bébé am na lu muy joxoñ ki nga xamante ne mooy a neex ama neex mi ci ginnaaw même na moomit benn butéel bu muy xëppoo cay làmb lépp tegtal la. spécial bi la ñuy waaj a bëre xale bee ñu fi woo Jamaïcain Jam production moo ñu woo tey fi nga xamante ne mooy arène nationale 24 décembre. mais di leen waaj loo le premier incha allahu rabi ci combat bu mag combat royal dox ci diggante Modou Lo ak Boy Niang numéro 2 Bébé Diène mi ci digg géew bi. mais ama neex mi ci ginnaaw mais duggagul bébé jéen a ngi noonu yéen a ngi koy seen noonu moom bébé jéen noonu ndeysaan borom Medina nee naa tey jën kay moo ko andi waaye nee naa leen tey suñ peer oy kayre moo ko andi ndeysaan bébé Diène ci digg géew bi am na benn fas buñ koy jox am na benn fas buñ koy jox am na lu ñu ci wax ba tibli ci fas bi bébé jën am na benn fas buñ koy jox moom bébé jën ama neex mi ci ginnaaw ama neex tooñ nañ ko am na benn biteel bu muy xëppoo moom ama neex ama tooñ nañ ko am na biteel bu muy xëppoo moom ama neex cay làmb lépp teg la sëriñ bi am na yoo xam ne su la ko joxee danaan la bu ko xëppoo ci suuf nañ la yéeg aj la mais ama neex sol na ay dàll carax yu vert bébé moosa bu weex bu ñu yoroon ko ci ngemb li cay làmb nee la ngeen ciy ànd ak seen bu mag bi nga xam mooy Dakar People Sam laa ci àndal taawu yaayam waaye Aïssa laa ci àndal nee la titrage yu garaaw yi ngay gis moom moo koy def kenn du moom nee naa di liggéeyloo koo xamante ne tegu la benn pression wa di liggéeyal koo xam ne tegu la benn pression dafa neex jox la micro na la loo wax baax na koo gën a Moussa Faye Aïssa dañ lay ñaanal wér a gudd fan parce que nag macha allah seen bu dem fu kawe macha allah ndax yaa ci yoon wi xale nga waaye am nga jom nee naa yaay jigéen ju mën góor bu la neexoon tëdd sa kër ndeysaan préparation mystique bi nee na lamb ji jeex na waaye lamb ji jeexagul ndax arbitre leegul nee na lamb ji jeex na waaye lamb ji jeexagul ndax arbitre sifleegul Bébé Diène ba tey mi si digg géew bi ama neex moom ngeen seen noonu muy dox di dem ama neex moom ngeen seen noonu ma ànd ak arbitre yi mii noonu mi ngi dox di dem dañ leen a war a présenter ñoom ñaar ama neex ak bébé Diène spécial la ñuy bëre avant dox ci diggante rëg-rëg bu caaroy ak ba jee bu mbuur xale bi nee na guddi guddi mbuur ndeysaan am na ci droit su la gaam la waaye ki nga xamante ne mooy rëg-rëg moom it nee na guddi guddi caaroy géej am nga ci droit ndeysaan ñaari xale yaa ci digg géew bi mbokk yi dox ci diggante ama neex ak bébé nee na ama neex na waa Tëngéej gépp waaye Bébé Diène ànd ak na waa Médina gépp tey nag nee naa la combat spécial la ku ci daan sa buntu làmb day ubbeeku Bébé Diène a ngi noonu mi ngi présenté wu mooy ku xees ki ndeysaan waa ama neex yaa ngi noonu ama neex ñu ngi koy présenté arbitre baa leen woo ci digg géew bi ama neex ak Bébé Diène ñoom ñaar ñooy bëre spécial bi suñ papa Père Kayra am na lu koy wax ndeysaan conseil yu mujj yi la danaan ko teeyal lamb sa lamb la yaa ko moom loolu la ko Père Kayra di wax maa ngi koy dégg ba fii tey aya <laughs> ndeysaan Père Kayra nee ko teeyal lamb ci sa lamb la bébé Diène pour moom yaakaar nu taxaw si kanam mu faxas ko waaye yaa ngi bëre daanaan yaa ngi bëre koo xamante ne nii boolewul dara wax Bébé Diène yaa ngi bëree koo xamante ne nii si fulaak fayda lay dox Bébé Diène yaa ngi bëree koo xamante ne nii jàmbaar la champion la waaye ama neex yaa ngi bëree ndaanaan yaa ngi bëri xale am doole yaa ngi bëri xale boo xamante ne nii lu nekk ci kanamam da koy faxas jàll nee na moom yoonam kenn du koy yàqal are la buy dem du taxawaalu ndeysaan ko koy Bébé Diène arbitre baa ngi lay wax li nangu ak li làmb nee naa leen woy leen di abonné di bës cloche de notification bi vidéo buñ dugal ngeen am ko ndeysaan bébé Diène ak noonu tañ na neen moom bébé Diène moo ñu wan ginnaaw ama neex moo jàkkaarloog ñun wuro ba dem na këng ndeysaan coow li coow li jeex na waaye nee naa la coow li coow li tay la tay lépp di leer naa la jëm wala Tëngéej loo si kanam tuuti lay leer ñaari xale yaa ngi bi mbokk yi dox ci diggante ama neex ak bébé Bébé Diène maa ngi lay moytuloo xale bi ndaa la dafa mën a bëri moom ama neex champion la te nee naa la boorewul dara ki wax ama neex maa ngi lay bàyyiloo xel xale bi nga am ndaa naanu làmb la xale bi nga am champion la xale bi nga am nee naa la bëri rek lay def ta lu taxaw ci kanam mën na koo faxas jàll li muy faral di wax ndeysaan Bébé Diène bu Medina ama neex bu Tëngéej bébé Diène di leen wax ni moo nekk ku xees ki ndeysaan moo ñu wan ginnaaw ama neex moo jàkkaarloo ñun mooy ku ñuul ki arbitre baa leen woo pour ñu taxaw ci digg géew bi mbokk yi combat spécial baa ngi ci digg géew bi bébé Diène bu dinaa ama neex bu Tëngéej ginnaaw bi ñu xas-xasoo waxante lu ne wure ba dem na këng ndeysaan coow li coow li jeex na jéen arbi bi bàyyi la wala nam ak lu mbaa lamb bañ arbi bi sifle na combat bi ama neex kabar na Bébé Diène kabar na mooy lii lan la yow <laughs> ama neex Bébé Diène ñaari xale yaa ngi léewtoo dara amagul ama neex Bébé Diène ñaari xale spécial la ñuy bëree jam production moo ñu woo tey fi nga xamante ne mooy arène nationale nga di ci ànd ak chaîne bu mag bi nga xam mooy Dakar People comme niñ koy defee spécial lamb tey le 24 décembre jamay kee di ñu jox kado nee naa la karo yim ñu dafa neex karo yim ñu jox dafa garaaw ñaari xale yaa ci digg géew bi mbokk yi bébé Diène ama neex bébé Diène ama neex bébé Diène mi ngi def déplacement de ratalaar mais ama neex mi ngi ne tekk di ko déglu bébé Diène yaa ngi bëreeg ndaanaan bébé Diène yaa ngi bëreeg champion waaye ama neex xale bi ngay bëreel xale la tan la ama neex bëgg na dem bébé Diène cokkaas na dóor na xeex raak jàppante ñaari xale yaa xeex dóor mu daanu wala lan mooy am oh! ama neex daan oh ama neex daan na bébé Diène bébé la doon moytuloo ama neex sànq la xale bi ngay am ndaanaan la bébé Diène la xale bi ngay bëreel champion la bébé Diène la xale bi ngay bëreel lu teg ci kanam mën na koo fa xas jàll bébé Diène da nga yaakaar ne yaa mën ama neex bébé Diène da nga la koy wax maa la ko doon bàyyi xel ama neex champion la la lu taxaw ci kanam mën na ama neex daan na Bébé Diène jël ba rëy na combat bi gaaw na oh Bébé daanu na ndeysaan Bébé daanu na ama neex daan na li ma wax sànq noonu nee naa la moytul xale bii moom ama neex daanaa la te dafa mën a bëre te boolewul dara ki wax ama neex daan na Bébé dama dëkk Tëngéej moom muy doomu Tëngéej yaayam di sama jigéen te xale jom la yal na ko yàlla far cat dama bokk ci lamb war a bëre mais ñi ngi naan Aliou Seye 2 bien na Niang ndaw mais Aliou Seye 2 Zarko amateur yi bëgg nañ ko mais Aliou Seye 2 ci combat Bombardier bi ak Reug Reug ci kattanu yàlla ku ci daana ku ci daana bëgg naa la waaw incha allah waaw. pare pare naa fépp. ñu gis ni booba léegi ay ay victoire nga tegale. avec ni ngay gagné à la manière. dóor mu daanu. waaw secret bi la. rek ànd waa Guédiawaye ànd ak waa Ikir Waalo. di naan yàlla yàlla dafa cat rek mosuñ ci mus baag balaay. jërëjëf dafa ñu taw fii jërëjëf waaw ah waay ñun ci ñu nekk suba ngoon guddeeg bëccëg waaw xam rek mooy loolu c'est normal ñu naa ku daan bëgg naa ku daanu ku daanu bëgg naa ko. mi ne yaram bi daa tàng. waaw sama yaram day xasan sama yaram dafa xasan na gars yi ñëw na gars ñëw ah ku daanu ku daanu yëpp na ñëw ma bëri yow dàq ñu ma bëri dàq ñu ma xeex yëpp ñu ma mbooloo voilà. fay bu baax a baax. ñu ngi bu baax. waaw gis nga ñu ngi noonu rek nekk suñu ruq di entraîné rek. di xaar promoteurs yi mooy loolu noonu ñu dox làmb ji ñu bëri instant bi moom wax dëgg fa yàlla ah li waroon a baax yëpp incha allah yàlla dogal na ni baax na instant bii nii quoi vraiment di xaar gars yi jël nu rek ñu bëre quoi. yaram bi daa xaw a tàng. non dafa mooy loolu xam nga koo xam ne da nga def ay douze combats su ñëw bi daan daan daan kalmu nduur mi benn defet la am daan mu ngi man maa ma sa daan ba toog ci kawam waaw ak ñeneen ak ñeneen di bëre kon dañu war a jël ñu bëre mais moytu bi dafa bëri quoi moytu. waaw moytu bi moytu ci làmb rek xam nga ñoom dañ bëgg dañ bëgg mbër bu xiiboon mbëru làmb yi dañuy toog seen saal naan seen ataaya xool mbër bu xiiboon ñu jël ko dañ bëgg mbër bu xiiboon non non fay day liggéey de man damay liggéey su ma bërewul dóor maa ki ci bi parce que nag at yi xaarewul te làmb jamono rek bu kiiwee bu jeexee rek jeex na quoi simple bi dox waaw waaw xam nga rek niñ toon tegee tegee wuñ ko mais ñi ngi ci di taxale na ci àll bi di bëre waaw mais sant yàlla quoi sant yàlla baax a baax rek. da ngay neexal làmb tey sa combat day gëj a am kenn xamul Boy Faye lan la. da nga saful làmb non man sama làmb du gisee de saf làmb de xam nga ñàkk a saf làmb munul loolu munul ne ku ay ay ay douze combats ba ay dumul mi bàyyi bëri ay douze ans ay Boy Kendar ay Sujata daan ay Sele ay ñeneen ak ñeneen ñoom ci làmb lañu ay Njambaan 2 bi muy baax man ñi ma daan bi ma leen di daan kenn daanuwu ci man ñi ma daan. kenn daanu ci am na ñoo xamante ne benn jël bu leer lañu am te booy fay leen ko daan xam naa looloo tax yéen mbëri dafa ñu jël booy fay ndax man moom li des ci suma carrière boo ma jëlee daanu wal bit gàng fii damay toog sa kaw du ma la daan bu leer bu neexee yàlla sa kaw laay toog xam sax wax incha allah ñu lay proposé ay combat am na mbër yoo xam ne lamb du leen boole parce que dangay mbër moo xamante ne day def deux combats trois bëgg a bëre n man ci ku bëree douze combats def ci ay sept grands combats xam nga ne kooku mënul bëre dañ may jox làmb joo xam ne làmb la jar na ko ma ànd ak sama staff ànd ak sama waa écurie muy waa Dóor Dóoraat am xale yu nekk sama ginnaaw nekk ay borom talent ay Valdo Aada Bawol yeneen boo yëpp ay Talfa ay ñangbaalo booy ne foofu noonu ay giro ñeneen waaw non Valdo di war a deux waaw mais mais tey jii nii ñooñu mënuñ ne sama ginnaaw tey jii nii jiital la nga jël yenn combat yi waaw li ñu nekk daal mooy gars yi nañu seet si ñu jël lamb yi ñu jël bëre ñi ñu war a bëreel quoi lamb jam ci kaw parce ci kaw gi dafa manqué ponkal dafa manqué ah. te dañu war a jël ñu bëre pour yéeg. ñëw ci kaw waaw mais ñi la war a jël ñi ngi ñi ngi segg di laamu ñi daa am léegi boo xoolee laamu ñi benn kalan boobu ñetti at yëpp ñoom ñooy bëre seen biir gisoo ñu dugal fa kenn waaw tey ji boo demee ci kaw a kaw gis nga fa ténor yi fa ne VIP bi ama ténor yooyu dañoo toj foofu ñu wàccaat formé waat beneen genre groupe ay ñoom comme yu mel ne ay Ada ay ñeneen ak ñeneen ak ñeneen defar beneen genre groupe tëjaat foofu ñooñu ñooy bëre seen biir noonu lañ ko te loolu du làmb làmb da nga koy tas ñëpp bëre su ko defee ay champion mën cee feeñ kaw gi dootul manqué poids lourd màgget yi màgget yi mën a génn làmb ji ñu bàyyi xale yu ñu bëre waaw mais màgget dañoo war a génn bàyyi xale yi ak i ma am na màgget yoo xamante ne moom dañoo màgget vrai màgget lañ dañu war a génn am na yoo xam ne màgget aguñ de dese nañ de ñu màgget màgget moo tax ñuy daan booy yi. bu mel ni màgget yi ngay wax may ñu dara xale yi de. waaw mais màgget yi may dara xale yi ni wala wax moo ci ne. gis nañ fi Zarko ak Bébé Diène ak Diène Kairé tey tamit ñu gis fi Ama Neex ak Bébé Diène ay Zarko mooy loolu Zarko bi ci xale tasee ta dañoo fekk ñu entraîné mën nañu doole kenn du ko entraîné dañ koy judduwaale ama zaaru Zarko yi ay nitu kattan lan yàlla may na leen ko nekku da ngay ñëw rek war leen daan noonu Ama Neex Bébé Diène favori bi nekkoon Bébé Diène ndax dañ ne moo gën a nekk xale non ci ko xamul làmb ci ko xamul lamb mais man dama ne daf ca am quelques mbër yoo xamante ni saa booy bëre ak ñoom dama naa la toujours vigilant parce que tout moment mën nañ la nax ci géewu làmb parce que dañoo am mënin mënin te boo leen ko xeebalee tarfatal ay ni ci lañ lay daan ñibbi. lan nga gis ci combat bi war a ñëw diggante Bombardier ak Reug Reug ndax Reug Reug tamit dafa basé wu ci may xale maa mën moom tamit tab jàpp ni boom Reug Reug kii Bombardier moo ko mag ba moom mooy xale yow lan nga gisee loolu. waaw mais làmb ama noonu la souvent da ngay ñëw am noo jàppee te moom yaakaar naa Reug Reug làmb bi mu jógee am na lum mu ko jàngal xanaa ci àddunaam mu ñëwatee day joxe cër bi. teel temps am segg làmb ji ba mu leer buy jëli mu jëli ci lu leer buy xeex di xeex ci lu leer parce que li mu jógee jàngal na ko ko te Bombardier dafa nekk benn doomu aadama boo xam ne yàkkamtiwul dara te dama lay ne la ku jiitu ci nekkul ne moo lay wax fi ngay toogee ku yàgg ci géew mënoo ko def yenn affaires yi te rek observé na ko entraîné na ci liggéey na ci li mu ci a liggéey te am yaa am naa yaakaar ne làmb ji ci kanam tuuti di ngeen gis combat bu neex fii waaw dina am làmb neex di làmb bi ah. waaw loolu doon bëree ak waaw naa la wax leen benn mbër la boo xam ne dafa yéeme mooy maanaam kenn mënu ko wax kenn mënu koo natt mbër mu ñu dul natt la mais mbër mu ñu dul natt nag da nga koy natt ba jàpp ko wala nga xool fi ngay téye ci moom. avantage bi ci la. avantage bi daal tey jii nii man moom gis naa ne Bombardier mbër bu mag la grand frère mais toujours faveur bi moom man maa ngi koy jox Reug Reug toujours waaw lamb ji daal Reug Reug Reug Reug laa jox de comme da faveur parce que tamit instant bii nii Bombardier amatul leen lu muy defaat ji lamb deux fois roi des arènes ñenn ñi doonaguñ sax benn roi des kon tey moom lu mu def defaat la quoi. waa fi nga naa ne amatul lu muy soxla ci lamb foofu la na digganteem ak Modou Lo waaye digganteem ak Balla Gaye mais loolu trois parties la def na premier bi troisième bi loolu est mun na jàll munul jàll de xam nga la ma doon loolu munul jàll dafa am état bu mu dafa bëreeg ay moromam bëreeg ay rakam bëreeg ay magam léegi day bëri ay rakk-rakkaatam lay bëreel fi ne ak ay jarbaatam moo tax man la mo troisième passe bi troisième bi munul dem parce que maanaam aas beeg bagage yi quoi. waaw mën naa am mille ñu ngi naan mais man de ah gëmaguma loolu de. làmb ji yaakaar nga ci xeex xeex. non làmb ji làmb ji yaakaaruma ci xeex yaakaar naa ne daal. lan la wax. kan moo xaritoo man damaa xaritoo waaye man xaritoo ma. waaw man maa koy may revanche maa ko daanoon suñ ma seetsee fayal ma lu ko jar ma bëreeg moom. nga la. waaw non xam nga moom laa mel ni rëy man duma moroomam gàmbi laa ko jàpp toroxal ko bi ma ko daanee gàmb ba amul victoire tey lay doog a amaat victoire. non non non non Félix Sow ma xool moo ma ñëwoon di ma dëkk waaw c'est normal dafa daan làmb moo demee noonu ki mu doon bëreel mun na koo daan mooy daan mun na koo daan. lim bëre tey Alliance Baldé ñu joxoon moo bëri xale champion la ndaanaan la xale bu yaru la làmb la doon bëre Alliance Baldé ni mu ko wuli daane Alliance Baldé mu noonu na ko daane noonu waaw moo gën a nekk xale waaw nee na du mag xale bu ndaw la te daa pare waxul dëgg mag la moo mag Tapha Tine kan yow yaa ñi ma yàlla ku la xam maa ko mag yow yaa seytaane ah waaw ah waaw waaw mi ngi noonu kon xam ne wuli mag la wuli ba muy bëre tabatin bëriwul bokk yow saytaane nga rek dimbali ma wuli ba muy bëre tabatin bëriwul suba samay doom dañuy bëre muy Jackson biri birima bi ci benn baat yàlla na ko yàlla may ndam ak caatu waalo tam suba da ciy bëre ay Jackson ay Jackson ay Jackson ay Jackson kenn du Jackson yàlla na ko yàlla may ndam lu seddu guy suba Jackson caatuwaal euh, tamit da ci bëre yàlla na ko yàlla may ndam Baye mi da ci bëre yàlla na ko yàlla may ndam at booy notaire suba daal géej waaye ay waaw samay doom a bëre yàlla na leen yàlla may ndam waaw alhamdulilah loolu laa ñaan yàlla ja